Euh, maître ma euh, maître ma dikke ñaa moo toog ñu nuyu nag Abdou Lahad Ka bu baax a baax taalibe sëriñ Abdou sëriñ Sidi Moussa Abdou Lahad boobu de di sunu xarit di sunu tonton lu bare bare ñu ngi koy nuyu di ko ziar moom moomu la ca Touba euh, donc dañ koy dalal ko nga xam ne rek moo di ca Touba waa def na café damay béti bàyyi reeji bu leen ma enfoncé yow it ah, maître ma dikke nuyu nan la ñang baal waaw sant yàlla sant sëriñ Touba di dellu di sant Cheikh Mountakha su Mountakha si taxawaay bu rafet bu nga xamante ne bi amal naka sa Touba. lii ma si am mbégte di si am kontaante. bu baax a baax di teew si seen plateau bi gëj naa fi. dorop dëgg jot gi amatuma ko maa ngi si daayira rek. yàllaawu bil Moustapha Sindidi ñu ngi ci Sindidi rek ak jawartu bil Furxaani ah, ñu ngi si Sindidi ak jawartu fi mu nii. daayira rek. Mhm. président daayira kuréelu Touba yëpp a. Ah. macha allah gannaaw nag. Euh, yaay président daayira Touba mhm. bépp la. démb nan nga dundee nag inauguration bi nga xam ne rek euh, moom ca université bi nan ko dundee. dama jooy. Mhm, dégg yi kay. dama jooy dama wax ni. ndeysaan oh xol bi sedd. dama bëggoon delluwaat gone ba jàng si université. si Ahmad Bamba. bi ma xoolee xale yi ñu ne ñolong ci kaw lal yi ma ne man la waroon a doon <laughs> may ñolong ñolong ci kaw lal yi. dama jooy barke mhm. Sëriñ Tuubaa dama jooy. Sëriñ Muntaxa visionnaire la. Mhm. bëgg xam-xam. Mhm. xam ni mën nga nekk Tuubaa léegi jàng li ngay jàng yépp. bax doon kàng ak fóode te doo génn Touba. ndeysaan dëgg la. Mm-hmm. seetal loolu. loolu for na. Mm-hmm. seetal loolu li kenn mës ko gis. Mm-hmm. démb dama jooy. ñun kay ne feeñ na ci kàddu yi ndeysaan. université. macha allah nu ko defaree. c'est extraordinaire te lépp plan bi lépp. plan plan bi. waaw ak lépp. plan ban. sëriñ bi la. plan bi sëñ bi moo ko defar xalaatam sëñ plan bi ah, ah. <laughs> plan yow yaa plan plan bi yow maître ma dikkee plan plan Touba ca kanam Touba bi yow yaa ko def plan université bi plan bi nga wax déedéet eh, yow yaa ni plan bi plan bi yow ban plan la defar plan université bu rëy ba ca des na ay projet dégg nga plan bi nga wax eh, eh, plan bi nga wax da nga ne plan bi te déglu ma Baye Fall mi ngi lay déglu déedéet plan bi plan bi da nga ne plan bi sëñ Muntaxa moo ko xalaat def ko bi jox ko ki xam ne moo di déedéet loolu nga wax sëñ Muntaxa moo xalaat plan bi moo bi des na plan xalaat laa wax da nga ah, ah da nga ne plan bi parce koo def si bëgg-bëgg déglu ma man mu la ma jabar déedéet yow yaa ne plan bi la si man dara yow déedéet yow plan ban sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa al Muntaxa nga joxe joxe ay milliards. jël ko jël loxo jël jël liggéey boobu jox ko kee xam moo wane fi sëñ bi toll. ci baatin plan bi. baatin laay wax déedéet nga wax plan bi. defu ko saayir waaye baatin bi plan bi te est que baatin ba laay waxee. plan nga wax plan bi est projet ba pare yow. université sëñ bee ko ko jox lam ko tracé. ci baatin yow ma dikkee yow léegi yow yow métti ma dikkee mii ah, da génn si baatin da ngay diingat baatin ngay diingat. non yow da ngay diingat baatin yow. yow damaa xam ne. acat acat diingat leen baatin. yow université duma ko diingat. université bi sëñ Muntaxa. Muntaxa lan sëñ Muntaxa lan plan bi. moo ko xalaat. Hmm. <laughs> waaw moo ko xalaat wala déedéet. da ngeen a bëgg a wér. yow daal yow daal yow daal ma dikkee. waaw lii moom moom di nga ko wax ak Baye Fall. Baye Fall yan Baye Fall yan Baye Fall yaa ngi lay xaalim. yow miy wax café. de jamal foofu yow mi naan robinet café. yow moom am nga problème yow yow yow yow yow yow booy ba nga xam ne. yow yow man maa ngi ànd ak ñoom li yaboo ba pare projet yooyu dafa bari. projet yi nga xam ne ci université yëpp di koy dinañ ko continuer robinet café <laughs> robinet Euh, di ci nuyu ñëpp di ci nuyu euh, du ma sàkki damay nuyu Boubacar. damay nuyu Boubacar Samba amul nuyu Boubacar ak bañ a nuyu Boubacar sunu yoon nekkul si loolu yow li nga wax wax nga ko Baye Fall yi dégg na. yow yaa tamit yaa ni plan bi plan bi sëñ Mountakha moo ko dessiné yaa ko wax. yaa ko wax baatin baatin gan. du ba waay bàyyi ma waay ala jërëjëf Adja kon ba suba incha allah merci beaucoup waaw nga nuyu ñu suñu bàjjan Adja Khoudia di ko ziar bu baax a baax mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar la famille di jaajëfal également yéen ñi nu bokkaloon ah hmm? ñu ñu ma leen ñu leen di gërëm yéen ñi nu bokkaloon euh, plateau bi <laughs> di jaajëfal nos amis euh, ak tëb toog rek ba ma tëj ma pare merci beaucoup balaa may tëj ñëpp jóg plateau bu bees jëfin bu bees toog leen ma tëj émission bi voilà